kontaan di jaajëfal Pape Demba mi fi jaar sànq itam ah di jaajëfal Soda Diop mi nekk ci chat en direct bi Binta Ibrahima Playa aussi ah moom wax na ci ah, ki nga xamante ne tey moo jur coow yi moom jàpp na ne moom ah, Awoush ah, ñenn ci farandooy Ousmane Sonko yi wala sax ñi nga xam ne militant Ousmane Sonko yi ñoo ko daan ñoo ko daan may may buzz tey nag ah buzz boobu nag nag dafa mel ni moom da caa da caa daal di laxasu ngir rek wëlbati yéreem wëlbati yére nag on ne pas ndax gis nañ daal ah mu dem seeti président photo ak moom kontaan ca lool ah <laughs> loolu daal la gars yi seetloo gum rajo am na keneen ko bëgg a bokk ci waxtaan wi 77 lay def 810 90 90 77 810 90 90 fu waaye nekk ci àdduna bi mën nga bokk ci waxtaan wi euh, waaye nag euh, ñi nga xamante ne nekkuñu Sénégal ñoom ci WhatsApp la ñuy wootee ñi nga xamante ne ñoom ci réew mi lañ nekk dañuy wootee ci appel direct su ko defee daan nañ dugg itam joxe seen xalaat allo Siram asalaamaaleykum. ah tey ni nga nuyoo neex na de xanaa nag ma indil nouvelle bu rëdd. jëmm ji rek damay bég damay kontaan lool. <laughs> Ah, merci merci beaucoup. merci naka naka ngeen def naka yëngu yeeg maanaam daal xam naa dañ naan tolluwaayu réew mi wala tolluwaay ma ne tolluwaay jikko yi am naa politique beeg yépp nag mu ngi ci biiram a ah ndeysaan ah loolu day la ñu bëgg xam nga moom politique ak jiko dafa ànd. ñi nga xamante ne ñoom. su seen i bopp mu dëgguwuñu xam nga ñooñu moom ci lépp lu ñu def ñu caa dëggu. tey suñu solee su leen neexee sol mbubb mu wert suba su neexee sol mbubb mu bëla xam nga ku dëgguwul moom doo mu def lu dëggu. looloo tax looloo tax ñu ne ku ku mel ni Sorom warut a bokk ku mel ni Albashir warut a bokk ab <laughs> imaam bu mu ca bokk ndax daag wax tey génne ca suba ñu ne la yomb na ci politique bi waaye ko dëggu mënut ko. ay sëñ Bass ñoo ngi lay nuyu la ziar. waaw fii la ëppee waaye sëñ bi maa waaye sinon maa fii la ëppee maa ngi lay ziar bu baax a baax di la jaaja nag mhm. gis nañ ne wax dëgg yàlla ñu mel ni yéen mhm. euh, leen soxla ci ci pénc mi mhm. ndax euh, macha allah ngeen di partagé ak li ñu su boobaa nag dañ ci jàngee lu bëree bëree bëri comme li ngeen indi nii tey euh, mu mel ni allo bitim réew war na def loo xam ne sigil Afrique ba bu boobaa ñuy jàppee Afrique nag kii doomi Afrique la. Mhm. naka noonu nag buñ ne Sénégal tam wala ñu ne Sénégal bi la jógee. kooku mhm. war naa taxawaay taxawaay boo xam ne fu mu dem rek ñu naw ndax lu tax mhm. bi bi wax. rawatina xaas na ñu ne Sénégal mi nga xam ne nag fi mu nekk ci sofru jën bi fii nii. mën naa la wax ne euh, ab kii la royukaay la daal royukaay lañ ko jàpp Mhm. maintenant léegi léegi suñu ñëwee ci njub ci sell ci yiw ci mbaax. Mhm. waaw loole yëpp bu ñu ko xam demee nag ba am. du mhm. ma du ñàkk nag euh, du ñàkk nag surom ñenn ci ñun ñoo xam ne euh, ndax nag yonent bi noon na bëggoon ñëpp baax bëggoon ñëpp jub yàlla na ko ah Moustapha ku la topp baax nag waaye innaka innaka laa tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha su boobaa fii ñun ñoo war a nit ki moo war a xam boppam moo war a taxaw gisaat boppam. taxaw ci seetu xool li ko war ci askan wi ak li ko war ci pénc mi. ndax buñ ko tuddee tudd Sénégal lan la war a doxee naka la war a mel mhm. ban taxawaay la war a taxaw ban mhm. jikko lañ ko war a xoolee waaye nit mhm. bu demee ba dellu ci suma radat naaw asfal saafiliina loolu mooy jikko ñii nga tudd nii ne léeg nga gis koo xam ne ndax eh, ngeen dem ba jàngat ne ndax eh, ku yàlla dem ba yóbbu la ci eh, martabaab nga njiitum réew ndax dana dana dana mën a joxante loxo wala muy toog wala muy photo ak keneen koo xam ne xëy na te na muy doxee daal dafa xaw a xeebu waaw loolu yëpp di man dama jàpp ne aw mm-hmm. oh, sëñ Bas réseau baa ngay daw allo sëñ Bas sëñ Cissé allo dafa am foo xam ne boo fa to waaw boo fa tolloo comme mm-hmm. comme seen sut sut bii nii tey am na ñoo xam ne tey ma bu ma duggoon tey di am na ma yóbbu programme bi danga may coupé danga ma naan ay Bachir fii fii su suma su bi man waxee woo fii mhm. waaw kon tamit dañ dem waaw nañ nañuy nañuy ànd ci dëgg te it bu ñu alal jaral yenn yi maanaam képp ku yàq nit maanaam foog na dafa yàq nit wala muy tuu mu koy tuumaal ay sosal ko ba jaral ko mu dem ci social media bii di bindu la mhm. ah. ci lépp ah. lu baax loo xam ne réew mi tey war mu ngi koy joxe. Hmm. bu ëllëgee mu àgg ca maqaamab day lu koy may loolu na mooy jikko. waaye hmm. topp ci mi media bi yàq der. di wax hmm. loo xam ne boo ko déggee yow da ngay ruus da ruus ne kii moom sénégalais la da ruus na sax si famille pa sàngam la bokk. yooyu yëpp matu ko fii àdduna la dafay jaar dañuy jeex nañ góorgóorlu rek kon lii laa ci doon euh, indi. ba mhm. balu àq ñëpp ndax ku guddal dina am ñum jël seen àq maa ngi wàcce kàddu yi di wax nañ defaraat nañ defaraat xam ne ñoo bokk ku defar waroo yàq merci waaw bu waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. merci merci merci Bassirou Cissé ah ci sa ñaan yooyu noonu ci lay dalalee jàmm Cheikh Omar sama xaritu bopp maa ngi koy euh, nuyu di nuyuwaale itam euh, mon ami euh, de toujours Cheikh Sadbou ah depuis la France ñoo ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko jaajëfal di moom itam am na bataaxal soo xamante ni yónnee na ma ko ngir jàllale la ko wàllum information xam naa suñuy tëjee waxtaan wi naa ko naa ko liiral communiqué communiqué boobu. ah euh, moom Euh, moom Cheikh Saad bu di ko jaajëfal bu baax a baax Cheikh Saad Mbuub depuis la France ñoo ngi koy nuyu di ko bu baax a baax di kontaane Binta euh, Awa ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi seetaan rek ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare régie jox ma keneen 77 euh, ah, na ci sa fans yi <laughs> naa ne nuyoo bee ko daaneel régie jox ma keneen su nekkee am na ko bëgg a bokk ci waxtaan wi rek 77 la 77 810 90 90 mooy euh, beneen euh, mooy mennum numéro bi nga xamante ne moom lañ daal di am ngir rek euh, bokk ci waxtaan bi moo xam ci réew mi ngeen nekk wala ci bitim réew soo leen jaaree ci nga mën a dugg ci waxtaan waaye itam soo leen jaaree ci whatsapp bi surtout ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew 77 la 810 90 90 mooy mennum numéro bi nga xam ne moo xam appel normal wala appel direct rek da nga ci mën a dugg rek ngir jàngat ak ñun la xamante ne tey moom lañ leen leen indil maa ngi koy fàttali sànq ne ki nga xamante ne moo di premier ministre Amadou Ba dem ca Touba daje fa ak euh, Serigne Bass Abdou Khadre ci moom ngiseep xalif général des Mourides en tant que candidat bien sûr bu Benno Bokk Yaakaar mooy xibaar yi nga xamante ne moom la ñuy jot waaye nag ci jamono jooju nga xam ne sëñ bi waxoon na ni moom Eh, gisee ak waxtaan ak ñaanalaate moom am na ci bari yoo xamante ne ah, dootu ci dootu ci ah, dootu ci mën a dox donc loolu ndax daana mën a antom déet li antuuti Ousmane Sonko mooy rabat en urgence bi nga xamante ne awkaam sàkk woon nañ ko ci wa Cour suprême ñooñu nen na ko déet loolu kañ mu jarut yàqamti ah na lépp nekk eh, tempo tempo rek ñu def ko eh, ca na mu ah, ca na mu te na mu gën a yéexee donc euh, ñoom daal lañu <laughs> loolu la loolu la ñuy wax ci euh, jàngat Rabadari en urgence boobu nga xamante ne ñoom sàkkoon nañ ko ngir rek euh, waa Cour suprême mën a mën a dellusiwaat ci ci mbir yooyu noonu ñu daal koy gàntal waaye itam loolu leen ndurul lool a kàddu yi nga xam ne Khalifa Sall moom artoon na ko ca ndax moom wax na ni toll na toog na lu ëpp ñaar fukki weer ak juróom-ñett yoo xamante ne digganteem ak wàllum yoon noonu la woon ba sax ñoom ñu daal di koy mujjee tere mu bokk ci élection yi te jàppoon na ni munoon na caa daal di bokk lii leen nag nekk artu yoo xam ne dafa nokk Ousmane Sonko ak i ak i jege ñaaleem waaye itam mu lay sàkku ci ñoom ñu gën a mën a dëgëral seen tànk gën a xeex ngir rek seen àq ak seen yelleef surtout wàllum bokk ci élection seen mbir mën a lijjantiku noonu na mu gën a euh, gaawee donc régie su nekkee am na ku bëgg a bokk ci euh, waxtaan wi 77 810 90 90 77 810 90 90 mooy euh, numéro bi nga xamante ne ci ngeen mën a jaar ngir bokk ci waxtaan wi Cheikh Oumar maa ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax di la wax aussi ah di la souhaiter waat vraiment un très bon début de semaine à toi et à tous nos internautes ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi euh, seetaan awaloo ci nga bokk bien sûr Léna njaay euh, ci nga bokk Adama Touré ci nga bokk expert Pablo ci nga bokk Binta ci nga bokk nday vraiment Abdou Fall ñëpp ñi nga xamante ñoo ngi seetaan sama xarit saa Touba itam ci la bokk maa ngi koy nuyu di ko kontaanee bu baax a baax a baax a Momo from Italia itam ah ñoo ngi koy eh, nuyu bu baax a baax say bëtu bojan ah Malang Dindi sama xarit Demba Ba itam maa ngi koy nuyu moom nag xaw na maa mere waaye amul problème waaye expliqué naa rek vraiment ñi nga xam ne ñoo ngi eh, seetaan ngeen xam ne ci ñaari fan yi nga xamante ne semaine passée jotuñu ko amal waxtaan bi ñoo ngi ko doon wax naan ah ngir je pense que tey gis ngeen ak plateau bu naññ bi nga xamante ne moom euh, wi xam ngeen vraiment y a quelque chose qui a changé espérant que ne euh, lii leen indi leneen loo xamante ne dana leen dana leen gën a neex régi jox ma keneen 77 810 90 90 muy numéro bi nga xamante ne képp ku ci bëgg a bokk ci ngay euh, daal di daal Pauline Tine mi soog a da gane wi waaye nag Pauline sama tur bu ko je m'appelle pas Zorom je m'appelle Jérôme ça s'écrit J E R O M e. ah, waaw ndax yow moom xam naa ne jàng nga bu baax a baax bul toppatoo ñoom saa Touba